فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة السلام عليكم يا لكن يا لكن يا لكن يا لكن يا لكن لا يا لكن يا لكن يا لكن لا لا لا بقول خم يا لكن yow la kan loo def fii loo def fii loo def fii loo def fii hmm. Hmm. dama koy yàqal loo koy yàqal hmm? lu tax nga koy yàqal lu tax nga koy yàqal daf la war a génne sarax sarax pour lan sarax pour lan sarax pour lan sarax pour lan pour mu gën am accès ci moom. pour nga gën a am accès ci moom. ci kan ci xale bu jigéen bi. yow la ngeen doyee sarax yooyu. daf ñuy dundal. la leen dundal. yéen yan sarax ngeen gën a bëgg. dret. dret. yéen rey yu bëri am temps yi la ama xooral xanaa yéen la. xanaa hmm. yéen a waral eh, rey yu bëri lan moo tax yéen soxlatoo leen ay deretu xara ak deretu lii ngeen ngeen di xiirtal nit ñi ñuy rayante. Mm. Hmm? yenn saa yi. waaw formation soxla sacrifice yi formation ñoo leen koy laaj. yéen a koy laaj pour lan ay ñaata nombre de. Hmm? ay litre lay doon wala ay nit lay doon wala ay lan. lu mu gën a bëri mm-hmm. pour lan. loo bëgg a def. daf ñuy rajeunir. Ah, loo bëgg a def dërët yooyu. daf ñu may doole. day may doole. Mm-hmm, ñu gën a defloo nit ñi lu bon. comme lan. Hmm. yenn saa nit day mer rek ñu dugg ko mu def lu mu bëggul def. Hmm. ak lan. bari na. ak lan dina bëgg dara lu baax ñu koy yàqal pour mu bañ ko def. dina bëgg lu baax. ñu koy yàqal pour bañ koo def. ak lan. nit dina bëgg julli du mën julli. ak lan. lan mooy seen foor yéen. Hmm? luy seen foor. déedéet yow dama la laaj rek yow xam naa yow nit ku baax nga. déedéet. mooy seen mission yéen la mooy seen mission dëgg-dëgg. ci lan ci yàq yàq lan. Hmm? yàq lan. yàq doomu aadama rek. yàq doomu aadama léegi yéen seen baas lan la. Hmm? seen base. dama laaj seen baas fan la ak lan la. ñoo ñaar at nga Hm, ñaata at nga am. vingt cinq nga de. depuis quand la franc soso? sosu. waaw depuis quand? jamonoy Souleymane. jamonoy Souleymane. du ma wax. waaw wax ma rek. Hmm? wax ma rek yow am xam-xam nga dama bëgg nga wax ma rek. wax ñoom jamono jooju lan lan lañ doon def jamono jooju xam nga jamono ji ay la ñu xiitan nii mais jamono jooju lan lañ doon def ñoom hmm? jamono jooju lu ñu doon def ñoom. ci xaatim lañ mhm. hmm. hmm? kon yéen jinne yéen a njëkk jiite affaire franc-maçon nit ñi doog see topp ba ban année jamonoy Moussa la woon doon def jinne li ñu yonent bi wax rek lañuy waxaat mooy waxam ñoom doo ko doo leen ko gëm à cent pour cent mais doo leen weddi tamit à cent pour cent comme nekk na loo xamante ni moom moo wax ñu dégg lu ñu wax rek la ñuy jàpp duñ ko weddi duñ ko gëm parce que jinne saay-saay na saay-saay boo xamante ni lu ko neex mun na ko mel lu ko neex tamit mun na wax kon wax jooju dañ ciy maandu